bon lave-mains bi dafa am benn euh, service bu ma demoon pour dugg si service bi bu ma demee pour dugg service bi gars yi nee nañ ma il faut ma raxasu dafa am robinet en même temps am saabu foofu ma ne leen lii yéen Covid bu ngeen di wax nii robine baa ngi nii saabu baa ngi nii mais boo laalee saabu bi ñëw nga laalaat robine ubbi robine bi laal ko nga pare si da ngay tëj robine bi mais feebar bi daf fay des. ma ne danaa defar lu nga xam ne ni loxo du ko la euh, loxo du laal dara si moom par manipulation lay doon mais dinaa yow nga gis ko naa ko indi nga gis ko ou nga dëgg ko ma créé ko bu ma ko créé bii laa njëkk a defar bu madaar bi boobu fonctionné ma ñëw ma defaat bu robine bi boobu dox ma génnee ko ma jël ko teg ko fële si godron bi bu mu ko tegee fële si godron bi gars yi gis ko gars yi buñ ko gisee ñu apprécier ko bég si lool am benn waay ba nga xam ne ni mu ñëw mu ñëw woo ma bu ma wooyee ma ñëw fekk si ko mu ne ma léegi manipuler ma xool waa ji mu ngi tudd ndaw ma manipuler def pédale gauche bi mooy bii bu mu ko bësee madaar bi ñëw ma def nii madaar bi ñëw ma def beneen bi ndox bi ñëw ma raasu ma ne ko ah ma ngi nii de te kenn loxo laalu ko defar naa lu nga xam ne ni loxo laalu ko dara dara lépp da ngay manipuler wu si lépp dangay ngay manipuler wu sur pédale waaw am naa ay commande

jógee nañ Dakar ñëw benn benn bu ma bu ma yore bi ñu jënd ko xam nga diggante ouvrier que ouvrier dañuy ñëw jënd xool pare yóbbu ko étudier ko xam ni ñuy liggéey beneen mais DER moom macha allah DER moom yoralu ma dërëm yoralu ma ko dërëm liggéeyal naa ko ba tey ma macha allah alhamdulilah. Euh, man maa ngi si am euh, ñetti façon ñett euh, ba ñeent parce que bu ngay gis bi nii bii gauche droite la. defaraat naa beneen bu nga xam ne ni kii la ni ñu koy waxate euh, ñaari euh, ñaari droite la mooy nekk ni mooy ñaari droit yi moo nekk ni en même temps defar naa bu sata la boobu pour xale yu ndaw yi la ak jardin yi ak euh, taalibe yi bon def naa beneen encore bu bu kii bu alcool bi ba nga xam ne ne boobu tamit da koy dugal doo laal dara doo pompe doo laal dara yooyu yaay pompe ak sa tànk alcool bi ñëw ngaraasu APADER commandé yu mu commandé yi ak yeneen yi maa ngi gis sama bopp tuuti